li taxoon ñu sos ko doxu ko mais ñu tas ko wala ñu wutaat ko beneen formule wala soit ñi nga xamante ni ñoom la ñu fay au niveau parce que pour man ministère ak i maam war na doy sëkk. war na doy sëkk leneen li mooy interlocuteur direct bi mooy ki yor ndar ak ki nga xamante ni moom mais tey jii bu buñ doon questionné. et vraiment man ça m'interpelle bi ñuy wax boobu ba tey buñ naan ay 400 personnes ñoom ñoo fa dee. bël bi quoi bël bi rey na 400 personnes. ñun kenn amu ci mbokk. mën nañu bañ a def dara mais quatre cent personnes bu jógee bu ay nit. ci benn communauté ci benn communauté. Mmh. ci benn quartier leneen li mooy. leneen li mooy am na euh, reportage bu ma fi gis ci su ma juumul France 24 la woon mais nga gis bi drone bi tiimee ndar gétt ndar. Mmh. mais sëriñ bi. c'est-à-dire que da nga naan ñii lañuy la ñuy liggéey sax lan la leen di jëriñ c'est-à-dire gisoo fa benn investissement boo xamante ni bu am solo la da nga naan ndax li ñuy liggéey moo ngi leen di jëriñ alors que tey jii boo jëlee seen contribution mooy li ma doon wax léegi secteur primaire bi muy pêche muy élevage muy agriculture boo jëlee seen niveau de contribution ak liy delluwaat ci ñoom mais ça pose problème gis nga inégalité yooyu tant que corrigé wuñu ko dañuy coow li day bari rek mais encore une fois le fait que aussi inégalité yooyu ñu koy entretenir mais c'est une forme de violence aussi alors euh, balaa may ñëw ci yow. licence euh, amaat yi xaaral. Ah, mais boo may rek balaa bu ba benn minute rek. non am na lu am na lu am na lu il faut ngeen leeral bël bi. il faut non may ma. il faut ngeen bu ngeen leeral bël bi. non may déglu surtout. non non dama defantewul waaw ok bien te donner la parole. comme ni ma ko bëgg si j'ai une information qui peut changer tournure débat beeg yu demee noonu laisse-moi. waaw waaw amul benn problème vas-y vas-y merci alors j'ai une information comme quoi Mauritanie dafa annulé donc c'est à vérifier dafa annuler finalement amende yi coow bi yëpp. waaw man loolu c'est c'est confirmé Pierre me dit c'est confirmé. da nga wax prends la parole. waaw man en fait lu ma lu ma lu ma bëggoon wax mooy euh, pourquoi ñu war a réduire euh, waa Guet Ndar si ay licence de pêche wala dara même si seen activité principale mooy napp mais doomu nappkat. mën na doon avocat doomu nattkat mën na doon Sadio Mané doomu nappkat <clears throat> mën na doon leneen ak leneen <clears throat> qu'est-ce fait de Guet Ndar ñun ñi nga xam ne ay man benn yoon laa fi mës a romb ma ne est-ce que man Sénégal laa nekk parce que am naa peut-être opportunité romb fa xool ma ne waaw j'ai jamais vu ça autant d'enfants yuy daw ci tali bi autant je n'ai j'en ai jamais vu il paraît que def nañ ci sax reportage mais loolu mais doo jàngat lan moo fa am ana école ya pourquoi doomu doomu nappkat bi yëpp dafa war a il faut mu dem napp quest lan mooy projet de développement wu Guet Ndar est-ce que est-ce que Guet Ndar dans la transformation wala dans les autres choses activité femmes yi nga xam ne dañuy peut-être ñenn ñi dañuy toog rek di xaar seen jëkkër yi ñëw dem bay qu'est-ce qu'on en lan lañ fay def loo xam ne peut-être que dina encourager njàngum école am boo nee ci dëkk yi ñu naan dañu bëgg a avancer dañu bëgg a dañu bëgg a def li mais loolu yëpp il faut nga intégrer ko c'est-à-dire que dëkk bu ci amul njàng ah saa yi ñu si gën a bëri si ginnaaw la ñuy dem man j'aimerais bien tey jii que ñi nga xam ne ñoom ñoo jóge foofu ñu wax ñu en dehors de napp bi ak licencié yooyu lan mooy avenir u Guet Ndar ci biir Sénégal ci développement wu Sénégal est-ce que nit ñi aussi dañuy toll nekk ay ouvrier tout le temps wala tey jii am na école yu baax xale yaa ngi koy jóge di def yeneen activité loolu yëpp dafa am solo cest à que te bu ba ma xamee xam ne ba léegi coowu Guet Ndar bi yëpp affaire licence de pêche la ak yooyu mais gisuma dara leneen loo xam ne moom mooy inciter nit ñi. alternative voilà ñoo xam ne non nga xam ne gis nga ni que ni ça bouge. waaw non non waaw d'accord non dama laajte dama ne dama ne en dehors de de tout sax parce que boo demee ci benn zone boo xam ne mu am benn concentration de xale ah ak de jigéen il faut nga seet yan activité la ñuy def parce que loolu moom mooy éviter que nit ñi aussi bañ a concentré wu toog fenn parce que bés bu tàkkee dafay dafay dafay dafay dafay def doom. mën naa leeral tuuti ma wax foofu xam nga pour bu ba ñu ba dañu comprendre. Mm-hmm. gën dafa esprit spécial. Mm-hmm. ma ma ma la benn jeunesse foofu. Mm-hmm. am nañ des cadres de très haut niveau moi j'ai des yoo xam c'est des cadres de haut niveau. Mhm. vraiment école bu baax mu ngi ci digg Gendar lycée Faidherbe c'est à 100 euh, c'est à moins de 500 donc loolu euh, am na fa mais c'est que problème mu Guet Ndar mooy problème bu xaw a complexe boo seetloo même boo seetloo Guet Ndar ki di ko moo jur goxu mbaaj waa Guet Ndar fi <laughs> ñu dagg tëli boobu la ñu waxoon ku bëgg a dem Guet Ndar c'est que problème mu Guet Ndar du Guet Ndar waa Guet Ndar la par exemple bu ñu leen daggaloon am na ñu commencé génn di def ay piquet mais boo daggoon tey ay cité tabax ko neen de Guet-Ndar du tout c'est loolu mooy problème ba quartier bi mootul mootul contenir. waaw ah, mais donc tu confirmes li ma doon. oui lu ma la la aada la xaw ma aada la nga xaw ma attaché à quelqu'un bi man tey man Birima soo bëggoon jox kër ne ma génnoon Sandiara bu doon nekk. Sandiara ban Sandiara foo non bàyyil Sandiara non ngay bàyyi. waaw non non non non xoolal yow fu nooy ngay dem Paris. New York tere ah, na Sali non mais dëgg la. Sali Singapour ak Japon bàyyi Sanjara. fa nga fàqee ko rek mais dëkkoo Sanjara. waaw d'accord ah. man samay ndey ak sama baay dëkk saa ma bay àllu Sanjara bépp mbaam laa doon bayee. dootul léegi de waaw damaa màgg ku ne bëgg ngaa tekki. ku ne bëgg ngaa gën sa baay nag. Ablaye ku baax ku ne da ngay gën sa baay la la nga am li nga am sa baab am góom nag toll ni yow li nga am tey sa baab am góom toll ni yow may may gale may may gale mais alors waaw mais dama ne dama ne kon Guet Ndar c'est important li may wax kon affaire bi du problème mu fàtte Guet Ndar bël bi fàttaliku leen bi ñu koy dagg man bokk ak ci ñu contrôle à Saint-Louis. c'était en 2006 ou 2005. on est à précisément 415 morts. waaw mais dañ koy dagg. 415 dañ koy dagg c'était le régime de Pérez ñu bañoon bari na. ñu waa Marocain yi indiwoon koy dagg 15 mètres la woon. Hmm. xaw ma 15 nangam effectivement eh, disparaître na le village de Doundaba Dieye. Hmm. ñu ko bañoon man ci laa bokkoon. à l'époque ñu ñëw di terroriser nit nan leen euh, les libéraux vont faire nangam nangam pour pour Saint-Louis voilà le résultat d'aujourd'hui lu ñu contre contre moom gerte la dëkk na wax. Eh. non dama ne na wax mu ngi nii entre man. yaa ngi wax waxu politique di. voilà mais politique ma ah. non bël bi ah, ah waxuma bël bi at moom lu ngay dagg noonu bis buñ ko dagg woon ndar moom kenn du fa nekk. ah waaw kon nag. mais état continuité la waaw mais maître solution am na. li la war mooy nga bëri. waaw may ma wax la dama parce que dama lay wax dama dama lay wax. Ah, benn affaire <laughs> comme boo demee boo demee dëkk bu mel ne Mauritanie. oui xam nga ñun tey Sénégal xam nga li war tax xam nga ñun ñu xoolaat suñu façon politique. boo demee dëkk bu mel ne Mauritanie tey moom ay port de pêche lay defar gaal pêche artisanale ñun noo ngi si ay quai de pêche. yooyu yëpp yu nu war taxaw xam nga def si jàngat def si seetlu la. dëgg la mais Mauritanie at yii ah ñun noo rag di jéego yu noo dox si wàllu pees ñun ñu fay dem. Hmm. Sénégal ñun doxunu lu mel noonu. yooyu nag mais jéeg voilà si wàllu effet jéeg bu taxaw fii xool waa Gendar ci wàllu ah? ah non bu taxaw fii xool waa Gendar tere ne le régime de euh, deful dara may ma may ma pas pas Gendar man ma dëgg laay wax non may ma dama dellu ndax ah? non may ma may may may ma may may ma an mi ngay wax ni ni ndar bu ñu deg dindiwoon bëri da nga bañoon boo bañoon rek ndar disparaît bël bi c'est obligatoire foofu nu ko dagg nu ah, dagg ko mu ndar nekk si jàmm ah. manul ñàkk ah, kon mooy résultat manul ñàkk pour mu am parce que ndox mi dem na bay yéeg si télé bi bi ñu ko daggee xam nga si la ndox mi yëpp dem mais am na loo xam boo ko defee ba pare da koy topp mm-hmm. nga xool nan nga koy deferee ba mu ñoŋ mm-hmm. bu ko defee ëllëg moo xam du ko am jur conséquences yi mu jur mais Sénégal dañ dul topp action ba mu sës loolu mooy problème bu dee wàlla yii ma lay wax ñun par rapport Sénégal ak Mauritanie ñun ñu ngi si ay quai de mais ñoom noo ngi si ay port de pes fi mu def tey jii nii deuxième portam bi ak digganteem ak ndar 35 kilomètres la mais géej googu moo gën bon bël bi fuuf mais boo xoolee nañ ko defaree dangay waaru si yàlla sax benn xànq muy damm rek amatu fa gaal yi dali foofu na ñuy nekk te pourtant ñoom seen doom pesunu fa mais ñun lan moo tax nag ñun ak li ñuy représenté si réew mi loolu man nu ko defaral ñun foofu nañ leen di woo yu mel noonu nu xool ka te xam ne askanu napp wax dëgg yàlla ñun lëjaluñ kenn. ñun politique wu ñu laajuñu xëy laajaanu la ne mais ñun problème bi nu am. li ñuy def nan nu ko tegal ci condition yu leer pour fi ñuy jaar pour mën duuti lu nu dunde mu nekk jéggi siraat ale nekk jéggi siraat retour nu taxaw defar. bël gi bi moom Macky Sall moom bu ko defaroon moom xam naa danaa am way woo xam ci àddunaam. dootul fay bël bi ñaata milliards a koy defar. ah bël bi daal Umar Gueye bi mu fi ñëwee. solo gaawam boobu moo fi defoon ndax moom li muy yàq si pes bi moom kenn mën la wax nu mu toll moom ministre Oumar Gueye moom moom pes bi moom moo ko yàq ba pare abal eh. moo tax Alioune Ndoye mi moom am na chantier yu mag hmm. moom dama gaa xool rek yërëm mais dama ni la ah da dama dama la hmm. doom bi fi ñëwee dafa ne balisage bi cinq milliards moo koy defar hmm. mais saa nga dégg version bi saa comprendre mais daal en tout cas lu man xew moom. na mhm. nanu xam ne ay bakkan noo fay tëdd. Mhm. te bakkan lu ko jënd yombul. Mhm. nu taxaw xool nan nanuy saafare loolu. ndax mbirum bël bi du affaire politique. comme yaa ngi fi toog daal balaa nga fiy jóge Guet Ndar seen jàmbat yëpp nan ko fi wax kilifa yaa ngi seetaan. waaw incha allah du ma yem si jàmbatu Guet Ndar kese jàmbaru Sénégal danaa la wax pes bi ak yoon yoo xam ni bu nu si jaaree géej gi dina amaat jël ba nu bàyyi géej gi amul maa ngi ñëwaat.